L'État nous ñu dem son excellence président Macky Sall la ñu bëgg l'air nit ñi dama ni dama son directeur de cabinet bi nga xam ne le maître Omar Youm Ibrahim Ndoy, c'est la si mu ngi le ministre Ibrahim Ndoy. ak le maire. Mamadou Thiaw bu tassé ñoma jëk yobu ci président ma jakarlo moom keroog bi ma démé ci président man naam jappon na ni dama ñëw ci bis bobu pour rallier ci parti man la jëk jox kaddu ni ma monsieur le maire jox na la kaddu yow la koy jëk jox bima ko joxé ma xamal gi ne que monsieur le président Tay ñewuma fi pour rallier ci parti bi dama ñew tay pour ubil la buntu Kayar li nga xamni mo manki ci Kayar des infrastructures bëgg na nga def ci sa loxo néew nga def lepp waye lo ci man nga def ko su ko defé bu ma andul ak yow it Kayar nañu and ak yow keroog lool la wax président fekk ñu ngi yor ben document boo xam ni collectif des maires ñoo ko yor ñu jébbal ko ko mu ni moom mooy yóbbu document bi conseil des ministres taxawuñu ci document bi ñu ko jox muy benn jéego ci lu ñu bindoon jox ñaareel bi jéego bi ñu jëm référendum mu yónnee fi le ministre Augustin Tine mu ànd ak le maire de Xombal ñoo ngi nii toog ay dund Pape Mbouba ngi nii Augustin ni ma président nee na xam na ni Kayar mooy sa parti waaye bëgg na nga ñëw jàppale ka ngeen ànd liggéey réew kon beneen jéegoo ngi noonu ñu ñëwaat fii mu ànd ak beneen yonent bi Thierno Alassane le ministre de l' énergie ànd ak Augustin Tine ak yenen directeur ñoo andu ñu ñëwaat wax la même chose mu nommé momadou Thiaw directeur exécutif bu bendel mu ñëw fi tégal ñu xeer ci pisu yu def 2 km 500 cent di 100 millions bu ñu ko défalé président motax tax mu mën ñu kaa defal kon lolu benen jégo ngi nonu kon loolu defe naa ni Kayar loolu war naa mën a tax ñu ànd ak président de la loolu mooy jéego yi nga xam ni moom la président def ca la ñu waxante woon ca pale ba moo tax it man ma def tey jéego.